waaw maa ngi lay fay soxna si. maa am nga maa ngi sant alhamdulilah. nan ngeen a waajee le 5 dimanche. waaw ndax yéen a ngi dajeeg xale bu am coow muy Ama Baldé doomu Pikine te ku ne dégg na waa Pikine li ñu wax lépp yéen lan ngeen leen di wax. ah waaw dëgg neexut Ama Baldé dafa daje roi des arènes. jaar ngeen jaaroon ak ma seen yaakaar naa biñ fa jaaree ak moom duñ jaaxle. est ce que pare est ce que foog ngeen dina yombee noonu. bañ a yomb combat bi gis naa si doomu daanu. démb damaa gis laa ci gis. démb damaa gis ama seen mu ne Ama Baldé yaa may fayu. loolu day wax lu ko neex rek xam ki moom mën ngaa wax sa xalaat bu am na droit wax xalaatam. waa Pikine nee nañ gën a fonk seen àdduna mooy combat bi nii te roi bi dañ koy jël par force. roi <laughs> naa ni jël ko ci ñun yombul bu ñu ñaanee si njëkk ñu jox leen ko si njëkk. yéen yéenay ah? waa ñu. waa Hann Doole Xarañ. yéenay waa Hann Doole Xarañ. waaw dimanche nan ngeen fas ñëw taaralee stade bi. a ah, dinañ ñëw préparé def non violence surtout loolu. waaw surtout yaakaar naa ni moom bu ñu ñëwee pour jàppale suñu mbër dañ koy jàppale ci li nga xam ne moom loolu la bëgg ñu jàppale ko yàlla may ko ndam incha allah